ñaari fan ñoo des ngir ñu jëm ci bés bi nga xam ni la yoon war fësal ndogal yi mu jël ci ndodd ñi nga xam ni ñoo di Adji saar ak Ousmane Sonko. bi dossier bi tàmbaleeg léegi nag Ousmane Sonko mi ngi taxaw temb tey dëggal nii dañ ko tuumal lile ñu koy jiiñ mu di mbiru viol moom defu ko. mu jàpp nag ni lile du lenn lu dul ab bataille politique dañ ko bëgg a wàññi ci élection présidentielle yu 2024. loolu tax muy woo nag ndaw yi ñu taxaw tey jàmmarloo xeex itam nguur gi nga xam ne jàppewu ko lu dul ab nguuru nooteel ak jaay doole muy loo xam ne moom it bàyyiwu ci loxoom ndax tey ay fan a ngi nii dafa mel ab stratégie yu bees bokk na ci bañ a ci procès yi leen di àtte mu bëri lool ay ndaw it yoo xam ni ñoom ñi ñu ngi taxaw tey ànd ak moom ci xeex bile ci bisub tey ji nag chantier BRT bu nek Sacré Cœur gannaaw cité Cœur góor gi benn groupe ndaw daldi songu ñom ñi lé taxawon nañu tay jema a li lé nga xam ni moy ligéyu askan wi waaye bala ñuy amal seenu bëgg-bëgg tak der yi nga xam ni wuñu won dara barab lé daldi nañ gaawantu tay ñew arrêté lène mu mel ni nag yàqu-yàqu yi bariwul waaye ñi de pare woon nañ pour taal file